génn nañ ci réunion bu nga xam ne dañ doon waxtaan pour xool nan lañ mën a organiser gàmmu Medina Baye bii euh, nga xam ne yaakaar nañ ne boo moytu ay booru le 18 octobre lay doon léegi nag li ci jot génne mooy am na ay poñ yu ci am solo yu nga xam ne ala kulli alin poñ yooyu moom il faut ñu taxaw ci saytu ko bu baax a baax doxal ko parce que poñ yooyu bu ñu ko doxalul bu baax rek dafay dafay dafa mën na indi ay rëq-rëq bi ci njëkk mooy karange gi karange gi euh, je crois que lu am solo la surtout ci contexte bi ñu toll donc de telle sorte que force de défense et de sécurité yëpp muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñëpp taxaw nañ pour li dalee ci boy dugg ci kaolak ci biir kaolak ak yenn yenn yenn yenn yenn ruq yi nekk ci kaolak ñu mëna assurer kaaraange ñi ñu fa nek mm, plus particulièrement nag fii euh, ci pays bi muy juma jek liko ko wër euh, euh, këru këru këru chef religieux yi ak fiñi défé fiñi défé cérémonie bi yépp dal ñu bayyi ci xel pour karangi ñi ñi ñu mën ci ñu mën ko jël jël en compte té mën wax karangi nak so ci bolé wul lu melni lampuy doy il faut que lampe yi doy euh, il faut que contrôle bi aussi ñu gën ko mëna def donc de telle sorte que police gendarmerie sapeur pompier yépp danañ former ben genre état major bu nga xamné ni ñom ñoy saytu dem beeg dik bi ak karangi ñi ñi buñ joggé ci lool nak amna lu am solo muy walu wér-gu-yaram xam ngeen ne dañoo tollu ci euh, presque ñi ngi do di génn à peine ci troisième vague te ku nekk xam na li mu fi jot a jur moo tax daal ñu bëla bëgg a jël suñu matuwaay am na ku mu posé léegi question sax ci tubaab 2 millions de masques dama ne ko 2 millions de masques sax nañ ko yokk parce que du état rek moo koy joxe lancé naa fi appel yenn opérateurs yi yenn partenaires yi ku nga xam ne nii vraiment bëgg nga cee jàpp ñu ngi lay woo nga ñëw indi say masques indi say gel yooyu bu ko dajalee je crois que 2 millions de masques du du dara luñ mën a luñ mën a atteindre la. mais nag yooyu bu ñu ko amee aussi ala kulli alin il faut que nit ñi ko te dafa am ay ay béréb yu nga xam ne duñ mën a permettre nit nag ñëw di fa dugg te takkoo masque loolu moom wax nañ ko fi mu leer parce que am na béréb yu nga xam ne raj rajloo ba fay nekk su ñi ñi takkul masque ay risque la pour ñu wàllante fekkee feebar ci am plus mën nga ko wàll sa morom donc loolu je crois que def nañ ci def nañ ci bàyyi nañ ci xel. mën naa wax dalal na suma xel di partie parce que lu ci bëri daan nañ ko wax mu manquant du ñàkk waaye nag manque yi yàlla rek a ñun li ñu war def nañ ko ñoom li leen war wax nañ ko léegi dañuy ànd ci liggéey bi rek surtout suñ kilifa gi nga xam ne mooy gouverneur wax nañu ñu gunge chef de service yi ci demande bi nga xam ne def nañ ko ànd ak ñoom di yëkkatee doo di tegandoo donc yaakaar na nañ suñ defee loolu demande bi ñu def mën nañ ko satisfaire surtout tey diñ ko defee gàmmu Covid ak nawet du lu bees daaw moom lañ defoon te génnoon nañ ci jël mesures yi nga xam ne ñi war a digle pour ñu moytu digle nañ ko euh, ñu def ko rek ak ak ak ak góorgóorlu. waaw am na lu ñu jàpp nañ ci manquent daaw yi loolu moo ko indi woon ba tey bokk na ci tawat yi njëkk a tawat gouverneur na ko loolu moom bëgg nañ moom mi yéegal mbir yi mu yéegal ko mu àgg foofu ndax mu mën a nekk ndax am na ci besoin yoo xam ne service yu ci régional bi. seen doolee du ko attan donc dafay baax ñu àggee ko état di Sénégal pour ñu jàppale ñu ci te gouverneur yaakaarloo nañu ci. lii ñu am fii buñ ko xeeb nañ ko sant yàlla te nañ ko jàpp autorités yi gën a góor góorgóorlu ci nit ñi parce que loolu moo tax ñu teg leen fi waaye nit ñi tamit koo jiital te sagaloo ko maggaloo ko joxoo ko cër encouragé woo ko dëgg-dëgg yi tamit du def performance bi nga xam ne moom nga soxla ci moom. danay faral di wax ni nit danañ ko wax yaa baax ba mu baax mais nit danañ ko wax yaa bon ba waaw kon nag nañuy wax nit ñi yaa baax ndax ñu jéem a lu baax loolu mooy li nga xam ne man moom laa amoon ci lu may wax ci turu sëriñ bi di gërëm ñëpp encore une fois di gërëm gouverneur di ko wax ci kaw te gouverneur bu ma ko gërëmee dama ko bëgg a waaye mooy mbooleem ñiy liggéey fii waaye maa ngi ñaan bépp ku ñëw koo xam ne gouverneur ordon la nga ñëw fi wala nga ñëw fi ci turu sëriñ bi wala ngay journaliste wala ku la mënti oo nga ñëw fii teew fi maa ngi ñaan yàlla balaa déwén ci heure bi yàlla na nga yëg yokkute ci sa bopp yëg njëriñu ñëw ci gàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala